bis la bu mbégte feeñoon ci diggante cheikhul xadim ak rakkam ji mu wolu maam cheikh na ibrahim borom daaru ci ab tukki bu yàgg dénkoon ko njaboot gi dellu siga maam cheikh na taxawu njaboot gi taxaw bu am solo bis boobee lañuy màggal fii ci Argentine itam màggal nañ ko fi ci anam bu mucc ayib lool ci taxawaayu daayira maam cheikh na ibrahima fati borom daaru bi fi nekk ci teewaayu itam ay jullit yu bari yu nekk fii ci Argentine ñu jàng fi lim yu bari lool ci alxuraanul karim xasida sikar limu ay salaatu ala bi def fi ay jàng ci kuréel waaye itam amal fi ay bernde yu am solo ci teewaayu itam ay kilifa yu am solo lool ginnaaw gi moom boroom daaru maam Cheikhna Amar bi jiite liggéeyu maam Cheikhna Ibrahima Fati bi yëkkati na ay kàddu yu soññe soññi itam mbooloo mi ci teewaayu tey bii di sàkku itam alxemes bu jot ni ñuy dundale guddi àjjuma fii muy sàkku ñëpp ci teew ak itam sumb ak mébét bu am solo bi nga xam ni amal nañu ko mooy kër sëñ Tuubaa gi nu jënd ca waajal liggéey bi na ma amal ab assemblée générale le 19 mars ngir daal di dajale addi yu jëm ci liggéey bi góorgóorlu ba loo jàpp bu alxamis guddi a guddi ajjuma ñëwatee nga bàyyi li ngay def ñëw ndax mbooloo mi ñu ngi ci dëkk bi ndax ñii ñëpp daanaka boo xoolee daayira bi bu ngi koy daje ay mbo ñu néew ñoo fi nekk tey jii kon yéen ñi fi nekk rawatina ak yéen waa taalibe borom daar yi tey yéen ñëpp man xam fu ngeen làqoon gis naa leen maam jotaay bi nii defal sëñ Tuubaa bu ko du lu lu rëy la nee ba mu fi dalee ñëw ba léegi aajo bu mu fi andaale bu ma toogee fii bu ñuy xa bu sañuy rote xam buy xam wala gaa ñiy di ñaan wala ñuy sikkar bu ma ko fasee bu ma xëyee bu saafara mais loolu la gëm-gëm la ak pas-pas la sëñ Tuubaa moom fi nga rek foofu la lay toll nanuy ñëw ci daayira bi ndax daayira bi ci la ñuy mën a tënke lépp ci la a def lépp bu loolu passé tamit di leen jaajëfal ci kër sëñ Tuubaa gi xam ne borom dogal na ñu ñu jënd ko ba le 19 mars dañoo am benn daje boo xam ne dañ cee war a dajale àjjee muy bisu jaayante ñu koy defee fii ci fii ci seetal bi fii 10 allah ndax kër gi ku ne xam ne ne am na yu néeg am na lépp waaye ni nu bëgg kër Sëñ Tuubaa mel ko méngóo wut ak noonu dañ koo war a defaraat bu baax a baax.